li ci yéenekaay yi Elhadji Ousseynou jàmm ci xibaar yéen yi nga xam ne nag moom la ñu jamono ji nag yéen i di jamono ji kay Abdoulaye Wade nañu ko lakk daal di taal li nga xam ne nag moo di bureau de vote yi loolee jamono ji Abdoulaye Wade génn na ca kaay bi amal na ko ak ñenn ñoo xam ne ay kilifa lañu maanaam ñoo xam ne dañoo jiite nguur ci Afrique jamono ji Ablaye Wade da caa génn ba mu set yéen bi di la Soleil di ñu xamal ne ca jamono jojee Macky kay jamono ji ma ngay wéyal campagne donte campagne bi daanaka léegi tey mu jeex waaye Macky Sall dig ñi nga xam ne nag ñoo di ndaw ñi ak ñi nga xam ne nag ñooy askanu Sénégal bu ñu ko joxaatee maanaam bu ñu ko mayaatee ñaareelu mandat moom Macky Sall mbir yi dana fexe ba mu gën a jaar ci yoon ca jamono jojee professeur Issa moom i tamit ñaaw waaye tamit moom ab campagne mu daal di koy jëmale ci ñi nga xam ne nag ngi jànkoonteel ay jafe-jafe yu metti jamono ji nag Macky Sall a jóg ci réewum Sénégal ndax de daanaka fitna ji nga xam ne Sénégal nekkee kay dafa war a abale bu dee nag maître Madické Niang moom nag ma ngay dikkati di leen xamal ne élection yi nga xam moom la ñu dënmal bu ngeen fexee ba falaat ma lépp loo xam ne jëm na ci wàllu bourse waaw maanaam xale yi daal danañu fexe ba képp koo xam ne yaa ngi université ñu fexe ba nañu jot seeni bourse yéenekaay bi di Vox Populi di ñu xamal ne ak lu mën di xew Ablaye Wade kay gannaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati ko jamono ji nag nee na moom Ablaye Wade ne Ablaye Wade lànk na daal di nay joxoñ ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko di di xew ak jiixi jaax am na

Ndiaye ne jamono jii lii xeeñ ci Sénégal neexul ndaxte lu mel ni buñ ca teelu te jóg élection yi nga xam ne moom la ñu dënmal danañ fi gis loo xam ne musuñu koo gis démb kay premier ministre gis na loo xam ne gëñ na koo gis waaw premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne gannaaw nag ba mu génnee waaw dañu ko doon yuxoo woo premier ministre dañ ko doon yuxoo ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak Idriss Seck les Idi Boys waaw dañoo tàmbali woon di yuxoo ñu xamal ne Junior Cissé Lo kay moom daanaka démb daf doon yuuxoo ki nga xam ne nag moo di Mouhamed Boun Abdallah Dionne moom Junior mi nga xam ne mooy jàppale ki nga xam ne nag moo di Idriss Seck di ko xamal ne jamono ji daal xamal ne waaw ndigal daal bu yeboo nga bañ ko xaar fii waaw ndigal du fi am te nag Idrissa Seck dafay gagné élection yi ci premier tour non gannaaw nag premier ministre ba mu jógee foofee daal di dem fi nga xam ne résidence xaadim rasul waaw nee na ma bi nekk ci daaru man naan gannaaw jaxasoo goo xam ne amoon na foofee Mohamed Boun Abdallah Dionne daal di yëkkati kaddu daal di leen di xamal ne man daal damaa ñëwoon ngir defante yéen teraanga waaye damaa ñëw ba fii ay xuloo laa fi fekk man nag maa daal di dugg ca otom daal di leen di woon gannaaw